Pape Ndiaye Walf moom itam mu ngi ci guddi gu bët setagul ajjuma weesu la ñu ko convoqué ginnaaw loolu ñu placé ko en garde à vue te tribunal bu ndakaaru mujjee naa janoog procureur bi ci laaj ak tontu mu lank ba kandaar ne du joxe ay sources ginnaaw si loolu nag ca ba fukki waxtu ak ñett di jot ca bëccëg ca la ñu ko rek dal di mën te yëpp ko ca oto yóbbu ko ca rëbës démb moo doon guddeem gu njëkk noonu la ñu ko dal di xamle Pape Ndiaye Walf déféré procureur ba ubbi na ci ab information judiciaire ginnaaw Pape Ndiaye bañ naa joxe ay sources am lu ni mel nag fi ne moom moo nekk boo xam ne daal dinañ ci xuus bu baax a baax ngir bëgg rek daal di xam kàddu yi nga xam ne Pape Ndiaye yëkkati na ko jëmale ko euh, ci magistrat yi waaye itam diffusion de fausses nouvelles gu ñu jàpp ne daal dina koy def fi ne looloo nekk a beneen xibaar bu tukkee ci biirum Pape Ndiaye Walf